asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi na nga def sama baaba yaa ngi ci jàmm yaa ngi ci bu baax baax a baax waa Serigne Madior ak Dior bi ñu ngi koy seetaan bu baax neex na lool sa théâtre bi nag dafa gën a am sens dafa gën a am sens c'est que am si nag ñoo xam ne dañoo yàkkamti théâtre boo koy seetaan film boo koy seetaan laaju yenn yàkkamti yooyu daal il faut que ngeen ñu patienter ba ci kanam ndaxte fi ñu xoolee naar Diop xool épisode instant ñu ci ay 42 yooyu naar bu feeñee nii day yomb trop mënut a feeñ ci film bi xaajagul ndax bu feeñee tamit la leen day dikkaat kese naar il faut que mu dem ba ci kanam di dem di dem ba ci kanam muy xam ne film bi lu ci des ay dis épisode moo ci des mu jeexal yooyu naar di soog di feeñ. xam nga lu ñu fii rek moo am moo am fii na fii da ngay gis ñuy def bon. yore xaalisam teewul nit ñi dañ ko ci dëgg seen làmmiñ dañ ciy dëgg seen tànk dox bi di koy xool sa su boobaa duñu am si leen lu ñu ciy wax film nag boo koy seetaan doo yàkkamti da ngay patienté jël sa temps nga xam ne lii da ngay seetaan nànk-nànk moom film indo ak film tubaab yi yëpp ñoo yem mais film yi daw Sénégal yëpp bii nii moom man ne sama gis-gis bu gàtt man yàgg naa seetaan façon théâtre bu ne mais bii nii nii nii moom gisaguma bu mel ni bii ndax bii am na sens te nuñ ko joué tamit nii la benn affaire rek la mooy joor wuruñu ko woon a violé joor moom waruñu ko woon a violé mais il faut que affaire bi tamit ñi ramado mais naar bu feeñee léegi du baax bu feeñee léegi moom du baax film boo koy seetaan day laaj nga patienté nànk nànk ndax loo gis rek da ngay patienté nànk tax nga xam njariñ bi pour ëllëg ngeen baar ma si kàddu Xew TV siyaare naa leen ah, di bëgg a participer rek ci chers yi ak Dior bi. vraiment neex na trop a ah, di wax ne comme par exemple comme femme boobu doon wax ba am beneen femme bu dugg doon wax ne comme ça li mu doon wax dafa garaaw ak yooyu non mais dama bëgg ñu comprendre ko xam nga série yi boo koy seetaan da ngay dem ba day nekk ci yow da nga koy dund quoi moo tax boo gisee lu la ci xaw a jaaxal rek après affaire bi xam nga da nga ciy mer daal da nga ciy mer moo tax xam naa moo tax mu waxe noonu foog ngeen comprendre ko rek mais xam naa jubluwut si sax wax bu. bon war parce que vraiment yéen moom li ngeen di def moom rafet na nice na quoi waa Pikine production mais xam naa ne xam nga série bi moo ko dugg trop te ni mu bëggoon affaire bi demee xam naa ne xaj na dafa gisagul action bi waaw na loolu loolu moo tax quoi mais du dara ñu ngi leen di jaare bu baax série bi nice na nice na mais man daal vraiment moom ah, comme li ma doon wax rek au début waaw man moom viole bi daal bu ma sañoon du am quoi vraiment viole bi daal moom moom moom métti na ma trop ci joor bilaay vraiment métti na ma trop trop trop ba pare aussi ah, num nuñ koy waxeeti sax mais gaan bi mooy fereeru joor boobu noonu mu gisee kooku daal vraiment man su nobanteeg joor daal affaire bi dina ma xaw a tuuse daal dina ma xaw a tuuse waaw ah, su ma sañoon daal xam nga nobante bi du am seen diggante xam nga fokk rek joor dem ba gis yooyu xam nga liñ semboon moog maa joor aussi xam nga affaire si sotti daal ci jàmm xam nga naar am defet nag yu metti waaw loolu daal moom vraiment moom man su fa su na ma neex quoi siyaare naa leen jaagin jëf. asalaamaaleykum samay mbokki boobu maa ngi leen di ziar soxna soosu li mu moom ànd naa ci ndax joor dafa teel a wér mënoon nañoo bàyyi ba ca kanam loolu moom ànd naa ci maajoor instant bi moom su ma sañoon ba journaliste yi moom duñu seq dara duñ nawante ndax buñ nawantee foofu am chance dara. ndax xelam ak xalaat yu bari da ko waroon teg ci joor mais man dama doon wax ci côté joor xam naa lim dund metti na trop euh, ba pare écarte bi mu écarté wu moom ak euh, maajoor xawoon na ma métti mais ci benn côté méttiwul ma quoi parce que man maajoor dama ko mere man gaan bi dama ko mere quoi vraiment bu doon sama copain la moom ah non dañuy yàqwante parce que man mënuma comprendre yow sa jabar am ay tolof tolof am ay jafe-jafe xoolal dem mais gaayan bi xoolal dafa mel ni affaire bi sentirul ko noonu quoi tewut ko dóor leer ba mu nice gaayan xam nga mais un moins xaw a nga xaw a nga xaw a kii affaire si ba nga xamante ne ku la gis sax xam ne waa ji mu ngi dund ay jolof tolof tolof mais maajoor doo ko xool sax ba sentir ji moom ne xam nga joor sori na ko affaire yi noonu dafa mel ni affaire si mënuma comprendre daal vraiment man affaire si xoolal joor bu continuer sax dund ak gaañ boobu barki yàlla man moo ma gënal parce que mi ngi mel ni joor li ñuy wax nit ki da koy yéene safaan ba fekk na la koy yéene mooy doon jàmmam parce que moom bi ko naar di génne pare ko sànki sànk boobu mu nar ko naroon ko sànk ndekete moo koy jural jàmm mais xolal joor xolal joor ci famille bi mu ñëw dundaat waaw ba bi dafa mel mooy famille kon léegi su su demee ba ràññeeku ne fii fi la bokk carrément ak li muy dund foofu noonu man loolu laa ko yéene mais pas mu war a delluwaat ci kër googu noonu xam nga dafa nar a dundaat ay tolof tolof ak naar na mu nekkoon ak moom xam nga wujj bi maareem xawma mais mais da ngay waaru vraiment kontaan naa trop ci épisode bi bii moom bee moom xaw naa xaw naa mer tuuti quoi parce que li joor doon dund wax dëgg yàlla métti woon na ma trop ak viol biñ ko violé ak affaire yooyu viol bi moom vraiment man daf ma naqari moom su ma sañoon daal du am quoi parce que vraiment métti na ma daal viol bi moom viol moom neexul ma quoi su ma sañoon daal du am waaw parce que joor lim dund dafa dafa dafa métti trop trop trop ba pare teg ci ko tamit vraiment dafa gën a métti siyaare nañ leen kontaan nañ si yéen mooy naam doole bi ci am doole bi ci am moom ëpp na torop torop sax waaw léegi tamit leneen tam garaaw na tamit Dior ginnaaw xelam dellu si na war naa xam ne moom elle est ak Madior warul dundloo ki yaakaar benn yoon loolu dina sof torop dina compliqué torop torop torop d'ailleurs naar tamit nan la mën a bokkee ak yaayu kii nu tuddati papi nan la mën a bokkee ak yaayu kii yaayu Madior benn papa yaayu Dior benn papa yaa ngi dégg tourné waat ñu nekk cousine ak cousin tourné waat euh, yaayu yaayu kii nu mu tuddati sax d'ailleurs yayu joor encore yaa ngi dégg bokkaat ak euh, papay joor tamit bokkaat ak yaayu maajoor tamit loolu tamit yëpp tricage daal mu ngi siy bëgg ëpp daal te bu si ëppee rek soof nañ defaraat kii daal neex na torop mancha allah moom waaye nag nañ defaraat daal. waa dégg bi nag amati na solo loolu bouteille bi moom est-ce que xanaa commentaire bu ndaw biñ siy wax rek mooy bu ndaw la muy xale bu jigéen boobu toog ak maa jooroon noonu yaay joor moo ko war a yebal de daa mel yaay joor moo ko yebal pour mu boole mu pour mu ànd ak maa pour mën a jaxase xelu yaama bi mais am na yaakaar ni ma maa joor war naa mën a xam déet bi war naa xam ne xale bu jigéen boobu dañ koo yebal. asalaamaaleykum. waa maa ngi déglu commentaire yi ba jot benn soxna moom maa ngi dégg mu ni comme ça que dikkoon série bi noonu la woon dañuy dem ba ni jeex nañu indiwaat ko mais si série dikkoon ba tey série Madior ak joor moo dàq série dikkoon ci man ci man moo dàq pour man sama yaakaar série dikkoon neexoon na lool macha allah mais Madior ak Dior macha allah ñi ko joué fee ñoo moomaat fii rek ndax Dior ci série dikkoon la bokkoon. ay Khadija ñoom ñëpp ci foofu la ñu bokkoon nday ndey firi ñoom ñëpp foofu la bokkoon ci série dikkoon la ñu bokkoon ak Khady kon benn instant yi dama naan ñi moom Dikoon ñoo jéewaat lii xëy na niveau yi moo gën a kawante mais ci sama gis-gis maa joor ak joor fi ñu ko bëgg a dagee non loolu du sensu épisode bi xam nga luy sensu épisode bi lan la doon doon ñu dem ba joor yaay seexu yaayam boobu tey joor xam ne yaayam seex la woon ñu xam ni ka kat yaay maajoor gisaat maajoor xam ni doomam deewul woon ndax moom doomam la doon wër ba benn moment fa mu nekkoon tey jii ñu ne naawtal moo ko fa yóbbu kon bu ñu demee ba benn instant yi loolu yëpp nañ ko war a mën a boole ñu tënk ka maajoor xam yaayam ni deewul mu gisaat bopp doomam gisaat yaayam doom ji tamit gisaat yaayam wala sens bi day am foofu noonu xam nga mais ñu ëlbatikuwaat joor jóge ci seexu yaayam xam ni yaayam seex la woon xam ni tamit kii ka yaay maa joor la woon ak yaayam ak euh, kooku noonu yaayu xale bu góor bi boobu ko yóbbu woon tey seen kër kon man dama naan ba tey série bi des na maajoor ak joor des na épisode bi fii mu bëgg a feeñee du feew épisode maajoor ak joor ci tëppile ngeen jàppale ñu rek mayaat ñu ko ñu xaw a jàllale affaire bi man ku ma joxoon sérieux kii scénario ma bind ko de lu leer laa leen di tegal nii li war a eggale film bi ngeen jégal ma waaw nekk leen si jàmm maa ngi leen béggee lu bëree bëree bëri yàgg naa di contacter ak yéen nag mais un jour benn vocal laa leen bàyyi ni leen dinaa fi dugaat dugaatuma mais seen numéro yàgg naa ko am damay bàyyi xel bu baax nekk leen si jàmm. asalaamaaleykum. maa ngi leen di ziar di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay may ñëw ci li may doon suivre tout temps mu neex ma muy Madior ak Dior épisode bi depuis Madior di gisante ak joor ñu xeex ci mbedd bi ba ni chaque jour dama koy suivre mais comme maanaam tey jii nii nii nga xamante ne ni moo ko arrivé muy def mariage am jotul dem fi ñuy célébrer mariage bi. yaayam def soog gaañu jotul dund bànneexu sëy amul dara ci ci mariage bi mu doon def amul benn yoon boo xamante ni mën nga ci ni lu mu dund lu ko neex la te ci biir dund boobu noonu man dama gis ni bu ñu ko xañee feenee bi waa ji filee oto bi yaayam gaañu dama gisoon ni foofu ci hôpital bi hmm, maajoor ak joor diggante boobu noonu comme métti na métit boobu ba yaayam décédé si dama gis ni foofu noonu comme joor dafa dof en même temps dama gis ni maajoor dafa waroon a nekk ak côté ak moom ba du war a rëccaat di dem xam nga ñu di ko di tonto Tafa ak euh, beneen copain journal yi kii doon jaay journal yi dama plané tour bi ndax foofu noonu man dama gis ni benn kii amoon na fi bu ndaw benn réaction boo xamante ni nii tey dañu ko waroon jouer foofu noonu ndax foofu noonu joor bi muy dem xelam moom Mariama la def boppam moom Mariama la def boppam joor dafa dem marché ñëwagul foofu noonu dama jàpp ni déedéet man nanguwuma mënoon nañu jël foofu noonu ni ko kat joor comme yaayam def na soog yaayam moo nekk ci xelam moom yaayam la waroon di xalaat foofu mais pas moom mu ëlbati def boppam Mariama non non man d'accord ma foofu noonu deuxième moment bi mu demee noonu ba dof tamit ñu jële ko ci hôpital bi disparaître ko. à moment tout moment tamit mu réer rëcc ñi nga xam ñoo ko doon disparaître foofu noonu man dama gisoon ni bi ñu ko yóbbu bi ko borom sareet bi fore waruñu dem di kooku di receti naa xam ko non non fan lan laa gisoon foofu noonu kooku daf ko waroon téye mu fexe di ko faj di ko naxtaananteeg moom ba xelam dellusiwaat foofu noonu xam nga moom mu xam leen leen ni leen yaayam nii wala yaayam naa wala euh, en plus bi ñu demee ba borom sareet bi dellooju ko bi ko ji fore yóbbu ko ci yaayam mu gis yaayam xelam di ñëwaat na foofu xaw na maa nangu ndax comme déjà pardon ngeen jégal ma comme déjà moom ban problème la am kani moom yaayam moo dee mu ñàkk xelam kon d'accord naa mu gis yaayam gis ku nurook yaayam xelam desuwaat foofu nangu naa c'est parce que ci comme côté boobu tey jii nii euh, noonu mu gisee yaayam demee xelam dem yaayam mu gisaat ku nurook yaayam seexu yaayam xelam ñëwaat mais wér bi noonu mën na yomb noonu mën na bañ a yomb mais takk dama jàpp ni rek bi xelam desee xelam dafa waroon dem ci maajoor mais paa ñu bëgg a jël waajale xelam di ko def ci muy bëggante ak joor ku gis lu baax nag di ko bëgg dëgg la te macha allah joor dafa rafet mais ngeen jéggal ma ci kàddu yi dinaa ñëwaat ak yéen ma réfléchiraat euh, lu bëri ci épisode bi man leen ci jox samay réaction man li ma gis mais man gisuma tamit série bi ñu dagg ko dama bëgg Madior ak Dior continuer te affaire viole bu ma sañoon ñu di ko quitté di ko invité ci comme ñun sommes des africains waruñu di suivre affaire des viols bëgguma ñu koy wane souvent ndax xale yi koy seetaan tey nii lu ñuy seetaan souvent dañuy capable dem di ko defi ji kon man bëgguma en tant que africain ñuy jouer ay affaire de viol affaire de arme man j'aime pas loolu man Aminata Mbodj laa tudd dëkk Kayar doomu Aïta Sy la waaw mooy loolu nekk leen ci jàmm. maa ngi leen di nuyu waa dama dugg ci youtube bi ma gis Madior ak joor ñu ci commentaire waa man tamit dama cee bëgg a wax rek waa. joor moom wërëm bi dafa teel daal maanaam ñu dafa teel daal waaw parce que mënoon naa dund ak meer bi ba xam lim doon dund ak yaam daal mu gis lu bëri mu dóora mais ni mu bëri nii moom dafa teel trop dafa teel waaw man moom loolu laa amoon lu ma si wax xaw ma nag. waaw asalaamaaleykum suma gars yi na ngeen def guddi bi bàyyi na ngeen am jaama. so man dama dee fooloo maajoor ak joor bi nag waaye non affaire bi neex na neex na man maa ngi dëkk Gàmbi so théâtre bi moom waxuma ne amagut fi de waaye yombut because of affaire bi mu ngi yeete te teg nañ ko ci yoon so di encourage rek di leen ñaanal tamit nag affaire bi gën a dem ci kanam so den uh, joor mun nañ wax ne feebaru toon feebar yoo xamante ne ni comme feebari xel la comme maanaam nit koo xamante ni da nga dof comme façon dof yooyu noonu dofutoon façon dof yooy noon so léegi jooru meeram bi accident xam naa ne moo tax xel mi xawanoon dem nii rek waaye comme lu mu wéree nii lenn la comme gis mu niroo yaay moo tax mu wér waaye maa ngi dégg benn commune boo xamante ni ne kooku mu ni sañoon joor dafa ak seeg doomi doomi yaayam bu ndaw boobu nekk ci kër bi xama doomi beneen meer bi mujjee gis daal bu mu maajoor kon théâtre bi sens bi dafay dem pour théâtre bi sens bi ñëw dafay wor ba gisaatoog maajoor maajoor mën a gisaateeg meer bi ñu mën a xam ne ñoom seen yaay ñoo bokk ndey ak baay di seen faada di seen mooda loolu mooy tax théâtre bi mun a gën a neex ki nekk ci kër ñoom maajoor euh, bàjjanam boobu noonu so moom mujjam nekk ci lala neex mujj fu la neex amu fenn mujjam lay nit ñuy xool loolu mooy nekk sens ci théâtre bi because of lu mu ci dee rôle comme rôle yi nit ku graaw noonu daal so moom su fekkee dafa mujj fu neex rek théâtre bi du am sens waaye su fekkee dafa mujj fu naxare rek yes théâtre bi dafa am sens ok jërë ngeen jëf man nag dama desa mun a wax nag yeah thank you waaw ba tey maa ñëwaat rek maajoor onkulam boobu noonu nijaayam boobu noonu tukki woon garmi kooku tamit pour mu ñëwaat ci théâtre bi dafay dool licence théâtre bi because of uh, am na lu mu xam lu waxagul kooku tamit bu ñëwee dana gën a dooleel maajoor gën a dool licence théâtre bi eh, yaama nag comme li ñoo wax rek sa yaay am na topp yoo ko topp dana dugal foo du mën a génn so ñàkkaa topp si yaay tamit because of danga gis ne boobu daanaka doo am doo am advantage nga topp sa yaay moo ëpp advantage waaye sa yaay boo ko topp nga topp ko ci lu baax nit soo ko day roy danga ko day roy ci lu baax soo xamee ne yow sa yaay nonsense la day róol comme sa maanaam lii lañ ne fasa nekkee si laay fam daal soo soo ko toppee mun naa dem ba daf lay tàggaleeg sa nit yi xam nga topp sa yaay topp ko comme la wax rek loolu ngay def lu la wax rek loolu ngay tamit ah, it's not correct ah <laughs> ok. waaw Xew TV moom lii moom tey maa jóor ak moom day na waar de ah, ah man fu ne dafa jaxasoo si man complètement complètement dafa jaxasoo si man ah. lii daal mel dañ ko échangé léegi Madior am keneen beneen femme léegi Dior moom am tamit keneen te daal ni ko bëgg doxalee ba wiiri di jaari ndaare daal ba ko doon ñuy dajewaat ah yéeme na trop trop trop waaw neex na moom lépp neex na moom man film bi moom daf maa neex lu ma ko tardé waaw parce que dafa am lu bari lu may lu ma lu ma lu dund loo xamante ne nii lu may fàttali la maa tax daf ko neex waaw di wax rek ah lépp neex na daal macha allah ah, di wax ni lii na war na gaaw a feeñ nag war na gaaw a feeñ pressé naa pour mu feeñ. asalaamaaleykum maa duggaat rek di wax ci comme ça que tey ji naar ak père Birahim ni ndax naar moom dama gis ni war na mën a am defet mais pas acteur film pour man warul mën dëgg la gàllankoor bi yëpp ci kawam war na mën a wàcc ci kawam mais cooki filmu boo gis cooki bu dafa am fin te joor comme nii mu demee ba sonn ci série bi nii waroon na am au moins ci fin de série bi bànneex ndax commencement bi yëpp naqar la commencement bi naqar nekk ci mbedd mi xeex di jaay journal dem ba maajoor gis ko ci jaayam journal moom bokk ko ñu ànd ci ba toll fii mu tolloog moom kon war na mën a dund ci fin de film bi lu neex yéen a ngeen dégg naar mi doon dund lu neex nag du dund lu métti lu tar yaay maajoor feeñ ñu bokkaat famille bi xamaat xam nga li taxoon moom bi mu ñëwee ci kër gi doomu naar bi génne ko kër geeg yooyu yëpp et tout dañ koo waroon a wane xam nga. ñu xam lii fii la war a mujjee ndax xale bi def bi mu def foofu noonu dëgg la du mbona yaay moo ko influencé si ni mu nekk mais dañu war bu ñuy joué benn affaire nañuy xool sens bi ñuy bàyyi di joué théâtre di toroxal nit j'espère mu ci biir kër yi dëgg la di ci yeete mais après nañu indiwaat luy confirmer loolu nii lii baaxul lii kii defoon de baaxul wala lu bon la mu defoon lii moo ko ca mujjee fekkee man nungu naa loolu ba tey mais joor war na mën a dund lu neex ci série bi mais lu naqari ba série bi ñu war ko jeexal ni non loolu duma ci kontaan per Birahim tamit aussi bu mu di toog ni naar am na xaalis rek lu mu bëgg dama ko koy defal lu mu bëgg dama ko koy defal ba jusqu'à mu toog ba au maximum dernier moment mu jël lépp compte bi vidé ko ci maajoor mi doomam ni mooy gérer lépp loolu dëgg la baax na ci parent yi ñu yeewu tuuti pour seen doom yi ñu xam nu ñuy dundee ak ñoom mais ci benn côté man dama d'accord Pa Birahim lépp doole lay wane lépp doole lay wane xam nga ba doole moo tax convocation dugg ci biir kër gi ñoom quatre personnes yu nekk ci kër gi ñu pelante leen pourquoi pelent yooyu noonu Euh, wane wuñu fan la ñu mën a ujjee biir ga mais Pape mi dafa gaay ni dafa am doole nag mbir neexal yoon xam nga daal di bàyyi lépp mu sedd ba convocation yooyu seeni borom yëguñu benn yoon ne dugg na ci kër gi ah kañ convocation bu duggee si kër c'est normal nga ni diw andi na la convocation mais de maa def li tax mujj ñu ji foofu dafa waroon a leeral mais tamit. série bi neex na macha allah kontaan naa ci lool lool lool lool mais daal loolu yëpp tamit ay fautes yuñ ci war a defaraat laa ñu jéggal ma kontaan naa ci nit ko joué mais su ma sañoon lu ci nekk dañ koy utal fu muy yem ndax Pape Birahim bi mu nëbbee convocation yi bi mu ko jëlee parce que ma tegal ka li yaayam def affaire criminelle yi mu joué yëpp kon nit buy def lu bon pour man sanga ko sutura dëgg la mais ak ci anam ba nga koy sàngee sutura. ndax ñun suñu gaal Sénégal suñu Sénégal gi lépp teraanga ak sutura la macha allah fa tabarakallah mais tamit dama bëgg nit ku jekk ci yoon ñu teg ci yoon ba bu ëllëgee kaneen ku ko waroon def day tax du ko bëgg a def ndax danaan diw ba mu defee nangam def nañ nangam bu ko defee réew mi développé ñu jëm sa kanam jàll ci yeneen tournée wala ngeen jégal ma ci kàddu yi maa ngi jégalu lu bëri neex na ma lool maa jor ak jor mais si sama contentement fi série bi di mujjum maa joor dem joor téléphone boobu ñu koy utal tey mu waat maa joor ñu àndaat xam nga détourné seen i paas xam nga fàttaliku seen i arrière passé dundaat dund bu neex ci biir kër gi ndax alal bi maa joor yor tey jii nii ah, joor manifestation ci alal bi lenn la ñu defaat retour ñoom ñaar mën a manifesté wu joor lekk ci dund ci tuuti bànneex mais maa ngi jégalu sama gaay di wax affaire bi gudd na mais di jégalu rek tamit yéen a ma gën a naka ngeen def naka guddi bi oh sériment joor bi ak joor bi boobu man dama ko doy follow is very nice dafa nice pour film bi ta moom comme mënoon nañu xaal bi si kanam balaa joor di mun wax oh man tudduma Mariama man joor laa tudda boobu dafa boobu daal dafa xaw a gaaw tuuti te mënoon naa gën a make sense tuuti si mënoon naa déglu bi si kanam soo nga xamee adono oh, naka laa ko mën a waxee sax so it's film bu nice la rek oh, tàngoon moom mu ngi nekka di ee nit ñi mu ngi nekk di ee tamit ñi nga xamee tamit ñu ngi nekk di violé xale yi oh, ñu ngi nekk di def lu bon o ngay abis doomu aadama tamit soo comme ni naa def tamit is very good ndax tamit moom big actor la moom moom tamit moom tamit moom tamit nu mu dee siwee tamit is very nice so I don't know all right ok naka ngeen naka bëccëg bi man dama dee seetaan Madior ak Dior ta seen film bi neex na ma ta mm, film bi film bu neex la film bi neex na ma ta mënoon nañu bàyyi Dior bi si kanamagum ñu mën a xam naka la mu ñam mujjee ak. xawma daal ak comme naka lañ ko violé so boobu dañ ko waroon na xoolaat bu baax a baax a baax a baax temps li joor tebeek wax comme isma comme sama tur la nii ma turuma noonu so boobu dafa gaaw comme ni ndaw si waxee mënoon nañu xaal bi si kanam rek soo ñu mun a xam film bi naka lay demee yaam film bu neex la moom so ma dem ko day man dem ko day follow waaw is is very nice so ok bye ciao bye good night bye. salaamaaleykum waa lu xew TV kilifa maa lay siyaare di la nuyu di siyaare ñëpp ah, ñuy siiwal série Madior ak Dior série boobu moom maa ngi ko doon topp di ko waaye dama xaw a découragé wu ndax mënuma comprendre koo xam ne toujours du échec. muy naar du échec ci lu muy def série yi nag bu doxee noonu bu yàggee dootul neex ndax kii bi commencé dara nga naar man melut chaque jour mi am victoire si kaw euh, nit ñi papaay Maajo tamit nu muy doxee noonu xam ne kii nekk ci dëgg nga naan dang ay ndénkaane yaay loolu doxul série daal waa Marodi TV daal. Hmm, exemple le ma seen série yi macha allah neex na lool Golden ak waa Idole Mœurs macha allah waaye Madior ak Dior moom ñu ngi koy topp ni waaye koo xam ne toujours day am ndam daal moom te mooy naar loolu moom neexul série daal. Euh, film bi nag neex na trop wax dëgg si yàlla neex na trop waaye nag li ma ci xaw a métti mooy que Dior li may dund temps xaw na maa tuuse trop trop trop trop wax dëgg si yàlla te aussi mel ni ndaw sale daal lu mu def rek mu jàll man looloo ma xaw a jaaxal parce que ndaw si moom bu dee benn jour sax waroon naa euh, programme benn kii mu échec mais chaque jour lu mu def rek mu jàll quoi man looloo ma gën a métti si affaire yi. waaw Madior Dior moom franchement neex na trop neex na moom man la ma koy seetaan du ma rëcc su fekkee man bañ naa ko YouTube sax laa koy karama dafa laa koy seetaanee. chaque jour saa bu ma kiiyee fa laa koy seetaanee su amee yaa ngi dégg fa laa koy seetaanee mais tamit film bi nee trop mais am na lu des parce que maa ngi dégg commentaire yi tamit gars yi di ko wax si YouTube bi mais tamit dëgg la parce que am na fu des parce que nit chaque jour rek benn nit buy def lu bon saa su ne rek mënul am di dëgg mënul di am dëgg ci kaw nit ñëpp wax rek laay wax parce que Naar Diop moomu des fois dafa war di daanu des fois mu jugaat parce que film noonu la bu bonee da nga gis des fois day daanu ba ñëpp xam ne moom mu defkat la. après mu jógaat du dëgg loolu laa loolu laa xam ne film loolu lay doxee mais ni mu ko doxee tamit chaque jour tamit moom mooy am ndam ci kaw ñëpp tamit bu dee réalité rek la ñuy wax ni sa doom dina bon sax wala sa rakk bon sax si kër ah mu leeral kii day rey ni day def kottu lu bon la sax danga nga koy dénoncé da nga koy dénoncé nga kay def parce que soo ko mënul a ah nga wax ko moom wax ko dëgg mu bàyyi mais koo xam ne damay nëbbal sàmm kóllëre waxu waajur waxu kilifa loolu c'est pas ba pare joor euh, moom yaayam waxoon na ko ni seex la ndax boo gisee mu ngi koy expliquer sax mooy mag ji freeram am doomu beneen seex bi mu ngi koy expliquer naan ko sama yaay seex la woon yaa ngi léegi moom joor yaayam seex la mais seex bee warul làqatu nii ba mu gisee joor ba joor ndaw si ne ko xam nga tamit waruñu ñu lépp ne sama yaay yooyu rek moom waroon na toog laa joor la moo tax. mu laaj luy sama yaay te tamit feebar boobu ñu ne waru mën a wér gis kooku rek wér mën na ne kay parce xool ku sa ndey dee nga dof bis boo gisee ku sa yaay ñu indil la ko da ngay wér parce que looloo la dof loo woon du yàlla la dof loo sa ndey moo accidenté dee nga dof ci kon soo gisee ku nduróog moom da ngay wér loolu c'est normal d'accord naa ko te xel mën na ko nangu mais xam na la xel mënul nangu parce que moom mi ngi laaj doom ji daan ko nii di ko tef nii loxo bi di ko liyaar mais doom ji ba mu koy expliquer waroon ko ne danga nga yaayam expliqué ko moom mu woo joor laaj ko ak nu yaayam tudd fu mu dëkk comprendre nga mu ne ko ndax yor nga sa foto yaay joor bu ko nee waaw mu wan joor fu mu joor wan ko fu mu dëkk mu dem jëli photo bi wala mu dugg ci kër yi nga gis photo Mariama yaa ngi dégg te photo boobu noonu mère bi yor jumelle bi photo bi mu yor yaay joor yor na ko te joor gisoon na photo boobu ba yëkkati ko photo boobu bu génneeg moom foo war a génneeg moom ci biti di wax ak joor laaj ko bu ko joor gisee dina xam ne kii am na lu mu bokk sama yaay. wala sama yaay la. asalaamaaleykum mbooloo ci jàmm ah man de li ma yaakaar Kunta Jool mi ngi xalaat te yaayam waxoon na ko ni seex la bi mu koy wax histoire ni mu demee ak papaam ah ci li ma yaakaar rek man de xanaa bu xalaatee loolu noonu dina xam ni kii mooy seexu yaayam bi. après si la koy raconter histoire am yëpp ni mu fa demee xam naa nag après si lay dem mu gis si la ko yaayam bu seexu yaayam bi di jàppale ba mu gis ma majeur après si lañuy mën a def si lañuy mën a def euh, porte plainte pour naa job man pour man loolu noonu donc moo mën a jàppale joor ba mu porte plainte naa job pour mu am pour mu pour pour pour mu am ku ko mën a taxawu ci avocat ay yooyu noonu ndox naaw job mën a dugg kaso bu dul loolu moom maa naaw job moom du mën a dugg kaso parce que naaw job dafa bëri ay dugg-dugg ay ay connaissance dafa bëri sinon bu deful noonu rek ah doo mën a am loo xamante ni day dugal kii nii naaw job kaso moo tax à propos yaama yaama moom nu mu fa mënti demee moom dina wax yaama. ndax dafa fiir ndax jigéen moom soo jalousé rek doo mën a téye dara lu ñëw rek sooy wax sax doo ko tey dangay wax dara ba pare nga regretté ko mm, loolu de laa si xalaatoon man. asalaamaaleykum sama waa kër maa ngi leen di nuyu leen di yaar leen jox seen wàccuwaay bu wóor di kontaan ci yéen bu baax a baax di ko di feddalewaat sama contentement ci yéen franchement épisode bi léegi léegi laa baax dama yeewu léegi am informe ni ma jël téléphone di xool euh, ma ne xaaral ma xoolal théâtre bi comme ça xaman li on direct daf may persi léegi su théâtre bi le temps épisode di jeex dana fekk ma gëmmentu naa effectivement c'est vrai maa ngi nii léegi maa ngi xam naa mais kontaan na trop si si man yéen moom duma dañ ci leen di leen wax ne kontaan naa ci yéen di leen ñaanal ngeen yokk ba yëg parce que seetaan kii bi série rek lu rëy la si man te ñaanal jàmm te ñaanal jullit yëpp mais vraiment joor ak ma maa joor ak si bëgg jaxasoo du tuur benn joor mi mi jàpp ni maajoor bu taw ay responsabilité alors que maajoor nee na yu ñëw fu yónneew fu yéen na fa moom du comprendre loolu donc moom c'est normal mu def xelam ci beneen góor du question bëgg sax mais jigéen ñi en général noonu lañu parce que dafa jàpp ni maa yor def ko waaye fa la daal bugg cela mën na bëgg keneen loolu mooy problème bi fekk maa yor bi du loolu dafa jotugul woon dem rek bi seetu mu ñëwee war si ñu rombe nag mu donc loolu day mais li gën a doywaar ci mooy xam naa ba bu demee ba bëgganteeg bëgganteeg client bi encore léegi ñu dem fekk ñun ñëpp ay cousin cousin lañu dana metti lool mais Madior moom dafa dafa xëy na Dior dafa naaje ci erreur que ni Madior dafa bëgg keneen mais Madior dafa teeyul ndax xaritu Dior ñoo nuy fekk fépp ko mais xamewu ko mais gëw man dafa bëgg xale bu jigéen bi parce que boo gisee réaction bi bi yaama woote dafa coupé téléphone bi mais si saa si dafa ndaw si ñu doon ñu dem beneen bi ñu toogee ci bi ndaw si bëgg a guddal wax dafa nekk wàcce ñu dem mu daal di wàcc dem donc man dama jàpp ne xale bu jigéen boobu ndaw ko dafa si moom parce que dafa bëgg fiir loo pour am si moom li mu bëgg mais joor moom dem li mu def c'est bien vrai que ni li mu yaakaar amut mais li mu def li amul tool aussi parce que li mu yaakaar ne loolu rek moom moo am donc amul tool parce que jàpp ne maajoo def ko négligé ko si hôpital déposé ko seet si ko toppatoo ko ba mu ngi koy jël di ko yóbbu affaire yi mel noonu loolu mooy problème donc moom amul lenn liñ ko je m'excuse donc moom amul lenn koy euh, rapproché moom lu dul ni moom mu jàpp ci xelam loolu la yaakaar ne moo am seetu yow maajoor tamit mu bu joor demee aussi xam nga yabal ay nit ñu ko wala mel noonu parce que moom ki toog di xaar dëgg bi ci biir kër gi alors que dana trouvé dëgg bi ci biir kër gi mais mu trouvé dëgg bi ci biir kër gi taxul ñoom ñu xam aussi fu mu nekk mais moom loolu xam ci dara pour moom ñu ngi ko yóbbu ci benn place ñu xam ne fu nekk loolu la jàpp. mais kontaan nañ daal ci yéen kontaan nañ ci yéen bu baax sax bég naa ci yéen bu bare bare bég naa de kontaan naa ci yéen lool waaw waaye xam nga rek ñun ñun moom lépp bu à chaque fois bu lu bu ndeesetaan théâtre moom lu ñu bëgg li rek lu ñuy bëgg moom mooy am mais non non du noonu théâtre bu nekk ak ñu koy joué et am na noo xam ne bu ñu ko doxalee day yomb bu mu ëpp c'est pour cela mais amul problème incha allah ñoo ngi daal jàmm ak xewal bu bari bu bari bu bari kenn yàlla defal jàmm defal ko jur yëpp man ci yéen lool sax wallahi kontaan naa ci yéen bu baax a baax kenn yàlla dëggal seen taxawaay may leen wér may leen kattan gi waaw bi yaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam xam ne kontaan naa ci yéen man ak am benn waaye dana xam naa bu demee bu gis maa joor moom xam fitam yëpp mais ah yal na si daal te fekk tal ko ba àgg si fin bi allah rabbi. asalaamaaleykum yéen waa Lu Xew TV waaw ah, sëñ bi maa ngi leen di nuyu ziar bu baax nag dama dugg dugg seen numéro bi ma bëgg a fàttali maa ak joor te xam ne maa joor te amoon moom dama ci kontaan ci li mu def. parce que yaama ay yaayam bu defuloon noonu rek pour dëkk bi ngeen def noonu du mën a xam li xew du mën a xam dëkk bi yëpp kontaan naa démb trop mais tant que joo nag moom man pour man démb comme que moom dafa am wér di xel warta mën a fàttali ko ba xam maa joo seesta ko ci hôpital bi wala seesta ko ci hôpital bi. biir weer de xelam bi mu ci def yëpp moom waru cee mën a ko dara ñoo dafa war na toog ñu koy fàttali mais pour moom waru cee am dara lu mu ciy fàttaliku daal waaw loolu daal moom kii na ma trop yomb na trop daal yaa ma gën a xam. asalaamaaleykum la xew tv maa leen di ziar leen bëggee lu bare bare lu ngeen nekkee ci jàmm bu baax a baax bi kontaan nañ ci trop série major ak joor kontaan nañ ci trop. billaahi man moom série bi moom daf ma neex tout le temps dama koy seetaan du ma raw benn yoon mais benn affaire rek moom ma xaw a jaaxal man si majoor Madior moom joor bu mu génnee si hôpital bi noonu dem Madior dem si hôpital bi di laajte ana sama jabar mais après moom bu mu jógee foofu ba léegi moom defatul defatul effort pour xam si joor si lu mu nekk léegi man foofu moom ma xaw a tuuse quoi la moo tax Madior mu bàyyi joor lijjanteetu ko di dox ay projet ko bàyyi joor mu dem noonu xamatul joor fa la nekk te joor nekk jabaram man foofu moo ma xaw a man pour man maa dafa waroon bàyyi lu mu jàppoon yëpp dem lijjante di joor ba xam mu nekk et lan moo tax nanguwul dem police lan moo tax demul police def déclaration wala mu yóbbu foofu photom sax pour xam nga wane ne am na ku muy wóor mais maa daal deful benn effort quoi premièrement bi daal la doon def effort mais mujjantal bi defatul effort man foofu daal moom a xaw a métti si film bi quoi ak violation bi violation bi ñuy kii joor daal man foofu tamit metti na ma waaw noonu warul woon kii quoi parce joor mu ngi mu ngi joge si feebar nga violé ko encore xam nga bu ñëwee ak xelam encore xelam bu dellu siwaatee ba mu xalaat ne man dañ ma defoon lii nii xam nga mun na indi foofu beneen problème encore ah waaw man daal loolu daal moom a xaw a tuuse si film bi quoi mais film bi neex na trop kontaan nañ ci